acca mbokk yeeg xarit yi teewlu euh, solution TV solution info mbégte la ñuy am euh, saay su nekk rek altine bu jot ci l' émission des émissions ñu fas yéene di ko ànd ak yéen comme niñ ko baaxoo di defee ji Jisa Njoogu Meng moo ñuy gunge ci bile euh, émission ñu nuyu nag mboolem internet yu ñuy suivre dem ba diwaanu ces kay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko suñu sëriñ bi sëriñ di mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko jàmm defal ko njabootam wis ko ci biir këram te koy ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yëpp mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew meeg bi ci réew duñ leen fàtte benn yoon ndaxte saay su nekk rek ñoo ñuy woy di ñu topp di commenter ak euh, partager suñu ay émission kon jaajëfal nañu leen bu baax a baax ñu gërëm Modou Diouf ak Abdoulaye Diallo ak Abdou Top mi nga xam ne mooy nekk di monter vidéo yi tous les jours euh, di nuyu ko nag moom Alaaji Sanjoogu Meng mi nga xam moom la ñuy bokkal nuyoo kenn toog tu ñuy suivre. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar dina ñaan jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha di mu yàgg fi tànd ak wér. di nuyu sunu sëriñ sunu xarit. mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér. di ko ziar wér nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër gaa njaboot ko yëpp nuyu nañ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal la nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi. di nuyu ñi ne ci xarala geeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaw Abdou Top alaaji Modou Diouf waaw ñuy son bu Diop waaw directeur programme ah. borom di nuyu ñëpp émission des émissions <laughs> eh, <laughs> di nuyu sénégalais am ñëpp mbégte kontaan te ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mm. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm amin jërëjëf amin yaa rabbi ko yàlla suñ ngoom bi defal defal ko mboolem jullit te koy ñaanal ñëpp nag euh, tey nag comme niñ koy defee rek altine bu jot euh, tey nag daañu ànd ak yéen euh, ci kàddu yi nga xam ne kii di Ndeye Fatou Ndiaye bu Sen TV yëkkati na ko jëm ci rek président de la république jàkkaarloo bi nga xamante ni nii doon na ko jàkkaarloog presse yenn presse yi ci biir réew mi mu xari leen lool nag ba mu wax ne ñàkk invité Sen TV ci boobu la jotaay nekk nit nii ñoom euh, daanaka rek lu ñuy ñawlu la ndax nee na euh, ku xam Sen TV xam ne moom mooy première seen télé ak rajo fii ci Sénégal te nee na nag kenn du gis pe bi naan dis ba mën a daw daañu ci ñëw léegi léegi ci ni mu gën a yaatoo Badara Gajaga moom itam euh, tàkkle na suñu premier ministre bi di Ousmane Sonko nee na nag jàpp na ni rek dañu am premier ministre bu nga xam ne nii il trop bavard suñu jàppee kàddu yi nga xam ne wax na ko nee na 100 jours sans VAR loolu la wax ak yeneen i mbir yoo xam ne rek ŋàññee na ko premier ministre bi ñu jeexalee ko ak Bougane Gueye Dany ñëw na ci kàddu yi nga xam ne ni moom président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati woon na ko keroog ba muy amal ndaje ak jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ni ñoo di jeunes reporters yu Sénégal wax joxe exemple ci impôts yi niñ koy fayee ba joxe ci ab exemple boo xamante ni nii daan nañ leen ko digtal moom nag ñëw na weddi mbir yi euh, ci ni ko gisee dañ koy daal di yaatal léegi ak euh, Ndeye Fatou Ndiaye bu Sen TV kaddu yu mu yëkkati jëm ci ñàkk invité bi nga xamante ne nii président bi ñàkk na ko invité Sen TV kàddu yu mu ci yëkkati ñu dem teewlu ko te dellusi. Kader l'a dit hier et je pense que loolu niru na ko lool léegi nag sur le choix de ne pas inviter des médias. ah loolu mooy refuser la réalité parce que des médias ci sondage yu ñu mujjee def rajo télé. absolument mooy première chaîne de télévision Zik FM est première Zik FM première rajo. la Sen léegi nag soo fi bàyyee un bi di wax ak deux bi ah yow yow loolu la neex yow la neex rek xëy na tokaar yi nga bëgg a sekkal mbir mi. Mhm. mais fii un taxaw ñuy discuter deux ak trois un bi ñu ngi nii wowoo leen waxal ak tokaar yi parce que des médias dafa incontournable ci espace audiovisuel sénégalais. te des médias ak loo leen mën a wax parole diversifiée dañ koy def en atteste nos deux invités monsieur Diagne bokkul ci majorité présidentielle mais monsieur Diante bokku na ci majorité présidentielle kon des médias li ko war en tant que presse mu ngi koy remplir nekku fi di stigmatiser nekku fi di marginaliser et la liberté de presse et d'opinion est garantie par l'article 8 de la constitution sénégalaise et je pense que le président de la république qui a juré respecter la loi de d'être le gardien de la constitution warul dem di euh, enfreindre benn loi boo xam ne constitution da koo digle mooy liberté de presse et d'opinion mhm. pourquoi je dis ça bu fekkee ne dañoo mere des média parce que dañu jàpp ne dañu hostile ci euh, politique gu nguur bi mais loolu c'est pas une raison ay Aïcha mi ngi noonu alaaji dégg nga euh, kàddu yi nga xam ne day faatu yëkkati woon na ko euh, mu mel ni nag affaire bi métti na leen lool parce que bu ñu demee ba dégg ndey faatu di traité ñi nga xam ne ñoom la ñu invité woon ci jotaay boobule ñu ne ñoom ay tokaar lañu ndax rek ñàkk invité bi ñu ñàkk invité euh, li nga xamante ni moo di chaîne télé rajo boobu di santé bi waaw xam nga prensaay àddina moom dafa am yoo xam ne boo ci nekkee. yenn yi moom ay erreur la yoo xam ne erreur bu réy la maanaam Ndeye Fatou li mu wax ni njuumte la. Euh, traité ay mbokki journaliste ñoo xamante ni bii ay doyen lañ jiitu ko ci métier bi. Mm-hmm. doonoon ay kilifaam ñëw ñu wan ko yoon wu muy jaar dalal ko baax ginnaaw bi nga xamante ni bii ñëw na ñi muy wax ñooñu ñooy ñi ko dalal ñoo koy jàngal. Mm-hmm. muy dem di def ay reportage di dem ak ñëw di ñëw di bind ñu koy wax ne ko juum nga fii def nga fii lii def nga fii lii ñooñu muy wax Tokar tey ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko teetee ci métier mi kon je pense que ni euh, par sax ki euh, respect dafa war a am sa digganteeg ñi nga xamante ni bii tey euh, mën nga leen gën a aay nag beneen yoon. Mm. mais ñoo la dalal yàlla lool la def ñoom ñoo la jàngal. ginnaaw bi ngay dem ba ñëw hmm. ñoo lay corriger teete la ba mujj gi yawit nga koy mën a defal say morom parce que képp koo xam ni yaa ngi soog a ñëw ci ay rédaction noonu la yëf yi di demee ña fa jiitu doon sa kilifa ñu responsabiliser leen ñooy doon say kilifa ñoo lay dalal hmm. te foofu gis naa fa ñu koo xam ni euh, fekke naa man mi ñu doon ki mu doon kilifaam kon donc am na moo yoo xam ni boo ko waxee euh, dafa doy waar bon président dem na sax ba leeral lu ni mel maanaam tontu ko xam naa ni moom euh, tontu boobu mu tontuwaale Ndeye faatu Bougane su mënoon a wax lu ni mel moom dana ko wax pour président tontu ko <laughs> parce que xam naa ni moom tontu bi moom ñeewee na ko Ndeye Fatou euh, xam naa du ko mën a am ko moom du mën a am tontu bi li mu def nag boo gisee mooy loo xamante ni bii tey yu mel nii lañ doon xaar kuréelu journaliste yi ñu jóg wax parce que dañu war a jóg ngir parce que lii ñuy def dafa dañoo xajamal. Mm-hmm. dañoo attaqué ay journalistes. Mm-hmm. mais kuréel yooyu doo leen faral di dégg. Mm-hmm. et pourtant dañu war a jóg wax ak ñi nga xamante ne recadré waat leen maanaam dal ci kaw ñii nga xamante ne bi wax nañ wax ji. parce que mën nga wax rek ne lu tax invité wuñ ma mais bul dem di traité say moroom say confrères nga leen di wax ne ay tokaar. amee nee na parce que Sen TV mooy première seen télé rajo nag. waaw Sen nag yàlla dafa def moom mu am yoonu boppam. bokkut ak gars yi yoon ñoom ñooy nekk. waaw mais ci liñ nekk bokkuñu ko kenn moo tax ñooy jiitu fuñ ne. kër lan la <laughs> ah, léegi ñoom ñoom dañu am ligne <laughs> éditoriale boo xamante ni bii tey <laughs> ligne éditoriale boo xam ni ah. bokkuñu ko kenn ñoom dong ñoo yëgut ni ñoom kese kese kese ñoom bu ñu def sondage ñoom kese ñoom ñoo nekk ci ligne boobu mais les autres bu ñuy wax ñi nga xamante ni bii nag dëgg-dëgg ñooy télé yi nga xam ni euh, yenu nañ maanaa di liggéey sans pour autant que nga xamante ni li ñuy def li ñu gis dañ koy wax di ko teg ci yoon foofu mënuñoo bokk ci compétition boobu compétition bii ñu bokk ñoo fay pied ñoom ñoo fa ban waaw loolu moom dañ leen di tàccu ne leen yoon wii ngeen jaar baax na continuer leen di ci jaar xam nga mbir mi euh, ma jigéen mbir mi du P ak 2 xam nga foofu mu nattee sax moo bon mën ngaa nekk P di def lu bon waaw hmm. ah. ah, P bu fekkee ne da ngaa nar nekk P rek ñu jël mën nga nekk P ba noppi di def lu bon mën nga nekk P ci lan ngay compétir ndax ci professionnalisme lañ lay natt parce que bu fekkente ni bi tey moom fi mu yóbbu mbir yi paie boo xamante ni bii dafa jàpp rek ne eh, ñi ëpp moom la ñuy déglu mais ñi ëpp ñooy ña fi mu toll nii tey euh, diina jaa ngi nii ak yenn yu baax yi. Mhm. demal ci émission yi nga xamante ni bi lu baax la ñuy wax. Mhm. ñooy ndaare ci internet bi te ñooy émission yi jàngale gën a baax demal ci émission yi ñuy saagaante di wax lu bon ñooy paie ci internet bi. Ah, parce que kon paie wu lan. waaw laaj de. c'est que il faut que nga wax paie bi paie lan la. Mhm. c'est pas que ni rek da ngaa nekk pay mais ci lan nga nekk pay loo liggéey ba nekk pay ndax ci professionnalisme nga nekk ndax danga teg yëf yi ci règle de l'art di wax li nga xam ni moom nga war a wax yan débat nga fa gis yoo xamante ni bi am na auteur boo xamante ni bi war na mën a tax ñu ne ci lii kat la ñuy jël critères yi la ñuy jël pour tànn. yan journaliste yu mag ñoo fa ne. yoo xamante ni bii tey mën nga leen a citer. Hmm. ne a ngi nii journaliste bu mag la mag nga seen TV. waa ñoom loolu la ñu jàpp mais dama mais dama laa laaj rek fi mu toll nii seen TV ban journaliste bu mag nga fa gis. ah alaaji nag ñoom ñu. waaw mais waxal ma nee nañ ay professionnel lañ. bañ na ba ay nañ bul ay mbokk mbokk journaliste. bul dema xam nga tey Walfadjri bi ñu waxee ne dañuy yóbbu nit. Hmm. dañoo jël Père Edouard Faye yóbbu ko. waaw Père Edouard Faye kenn du ko critiquer. Hmm. Walfadjri am na ñoo xam ne mën nañu dem. mënoon nañu jël mustafaa Diop yóbbu ko. bañ demee fa nga xam ne mooy te TFM kan lañ jël ah ma Moussa. ah non du maamam est-ce mhm. waaw moom lañ jël yóbbu fa. Mhm. Souleymane Niang mënoon nañoo yóbbu tamit keneen teet kii maanaam boo demee TFM da ngay am embarras du choix kan nga léegi Sen TV koy yóbbu. peut-être waaw wax ma kenn peut-être Ndeye Fatou ndax ay mbokk journaliste am taxaw nañ tey témoigner ne bopp bi daraa ngi ci. waaw boobu la problème am boobu la problème am yaa ngi dégg. <laughs> ne nañ bopp bi daa fees dell. waaw lu mu feesee. xam-xam bopp bi fees kañ bari na waaye bopp lu mu fees parce que bopp bu fekkee ne fees naa xam-xam waroo toog. fekk ñoo xamante ni bi say kilifa lañ ci métier bi nga leen di traité tokaar loolu mën naa fees waaye lan la feesee. xam-xam donc en tout cas xam nga li am solo. Ah. mooy. Mhm. Euh, xasaate jaadu. déedéet mais tey jii bu fekkente ni bi tey danga ne télé bii mooy pii mm. mais ci lan lañ ko nattee ñi doon natt ci lan lañ ko nattee fii leneen la dañu soxla ñoo xam ne mën nañ toog ak président poser ko ay questions. ci yi nga xamante ni léegi yow xam nga la nga waroon a bàyyi da nga waroon a bàyyi bañ def ba pare nga ne ah li ñu doon laaj de vraiment laajuñu ko wala laaj nañ hmm. loolu mooy xel mais waruñu tànn rek nga ne ñiñ tànn baaxuñu man maa gën a baax parce que man maay paye hmm. ki doon tànn yan critère lay tànne est xam nga tey jii wax dëgg fa yàlla nag carrément nag bu ñu duggee Sen TV euh, journaliste bu mag Eh, ah xanaa kii. Eh, femme boobu. Eh, kii femme Fatou Fatou Abdou. Fatou Abdou Ndiaye waaw Fatou Abdou Ndiaye. waaw kooku kii na. Mhm. kooku jàmbaar la. macha allah dégg nañ ko bo parce que ci biir kii yëpp nekkul ni dafa ànd ak nguur gi rek mais danga gis par yenn day. du ànd ak nguur gi. Mhm, mhm. mais di nga gis ni bu éviter it ku ànd ak nguur maanaam. équilibré na quoi Pierre Edouard a ngi nii kenn mënul wax kan la àndal kenn mënut a wax ni di kii la àndal wala kële mm. ah parce que xool ko suy euh, Pierre Edouard ñëpp nangu nañ ñi équilibré na nekk na koo xamante ni kii mënoo ne état bi lay kii wala kii lay àndal donc loolu lañ war a xool waaw mm. mais vraiment am na yoo xam ni kiiwut. <laughs> ay gars yi dañ la mere de <laughs> mi ngi noonu euh, Badara Gajaga moom itam euh, nee na nag euh, bu mu defee xayma daal ci 100 jours yi seetlu na ni am nañu premier ministre bu nga xam ne waxam bari na lool nee na 100 jours 100 var loolu la ay kàddu ñu dem deewlu ko te dellu par exemple nous avons un premier ministre très bavard. très bavard cent jours sans VAR moi je trouve que le premier ministre Ousmane Sonko est très bavard cent jours sans VAR la primature poste bi pour man poste de résultat la du poste d'exhibition la primature c'est un poste la boo xam ne poste de résultat la du poste d'exhibition donc man je pense que Ousmane Sonko fi ñu toll nii le temps de la parole opposition bi moo ko moom moom le temps du travail la yor et de l'action moom tey il faut mu arrêter d'être un opposant au pouvoir mu quitter posture opposant bi exercer l'état et la plénitude fonction woo plénitude fonction moo lay tere nga naan tapis rouge bi dama ciy dox ba mu neex ma yooyu c'est élémentaire c'est pas pour kilifa Ousmane Sonko doit être ci temps wu travail bi bàyyeeg opposition bi le temps de la parole li mu amoon démb minute bu nekk mu génn wax moment bi le c'est le temps de l'action maanaam tu as parlé de la concorde et de l'exercice c'est pas la même chose mm-hmm. dafay changer carrément de paradigme na bàyyi wax ji te ne ci jëf ji képp ku mu jàpp ni danga sàcc ñu am ci preuve nañ la teg ci yoon képp ku ñu jàpp ni defoon nga lu dul noonu nañ la teg ci yoon mm-hmm. mais nañu wàññi wax ji te ne ci jëf ji ay ayca mi ngi noonu alaaji dégg nga li Badara wax nee na primature résultat lañ fa gën a soxla nee na am na yenn euh, jëf yoo xam ne euh, opposition moom moo ko moom te Ousmane Sonko dafa war a xam ne léegi nekkatul kuy opposé wu résultat lañ bëgg si moom mu wàññi wax ci daal jàngat boobu daal la la def ban appréciation nga si am yow. waaw Badara de fi mu nekk wax ko fi indi du jëf. te dem na ba fi mu toll nii ci la yor njabootam ci la yor kiiwam ciy wax rek mm. moom Badara mm. wax wax day fay wax baax na mm. parce que moom wax rek lay def fi mu toll nii mi ngi nii di wax ba waxoon na fi ba waxal fi sax tey ki doon patron mu Youssou Ndour waxaloon na ko fi wax joo xamante ni bii tey bëggut kenn di ko teg lépp wax ko ko yóbbee nag moom Badara Gajaga <laughs> xam naa loolu lay bi maanaam moom euh, non wax jig na ko léegi moom warta ñu wax mm-hmm. moom ku war a respecté wax la xam ni wax am na lu muy jariñ mm-hmm. parce que tey teguñu ko fii c'est parce que xam-xam dañ ko fay teg dañ naan ko dangaa mën a wax mm-hmm. moo tax ñu teg ko ci post bi pour muy wax mais moom borom xam-xam la de. Hmm? loolu la gaa yi wax la. nee nañ gaa yi nee nañ dafa bëri xam. bàyyil gaa yi bul tooñ gaa yi. gaa yi ñooy yan yan gaa. <laughs> bàyyil gaay bul tooñ gaay <laughs> eh, mu donc moom warta warta warta ŋaañ warta ŋaañ wax mm. si Lamine yàlla na sunu borom xare àjjana amiin amiin te dolli ay leeram si amiin dafa dégg jamono quoi maanaam ku dégg jamono la maanaam eh, Modou Diouf defe naa ni mi koy fàttaliku am na benn réunion bu ñu mës def fële Sacré Cœur boobu ñu ngi Sacré Cœur yàgg ñu jekk-jekk ci biir réunion bi réunion xam nga problème mu timing la. maanaam dañu war a def réunion ci euh, pratiquement deux heures de temps yi. Mhm. pour waxtaanee ci li kii beeg yooyu mu indi ay experts yoo xamante ne bii aussi xam nga di moom moo mës a jël ay experts pour ñu critiquer ko euh, Walf. pour ñu critiquer ko. Mhm. Euh, boobu defe naa jëloon na Omar Seck Omar Masseck Ndiaye waaw Modou ak am na beneen waay boo xamante ni bii. gars yi dañ ko doon invité diine ak jamono pour après ñoom ñu ñëw joxe seen kii nu ñu gisee télé bi nu ñu gisee euh, nu ñu gisee rajo bi boobu rajo la nu ñu ko gisee ak faay yeeg yooyu ak journée yeeg affaire yooyu yan kii la kii pour mu joxe ci ay réponse mm-hmm. ñu jékki-jékki ñu indi lekk yi comprendre nga. Euh, léegi sii di ne pour bañ a perdre temps mu ne nañuy lekk di wax. di <laughs> que bu ñu. bàyyee bu ñu lekkee ba pare. pour war waxtaan. dañuy per temps bi day perd mhm. maanaam dinañ xuus wa ilaa liñ bëgg a wax duñ ko wax. mu ne lekk leen di wax nañ leen lekk di wax. di waxtaanaale waaw. Mhm. Ousmane Sonko loolu lay def liggéey di wax. Mhm. bul fàtte président Macky toog na fi benn période boo xam ni daf ne li muy def feeñut c'est parce que gars yi waxuñu ko. ministres yi Sénégal yi da ngay liggéey di wax boo liggéey di wax ñoom opposition bi dañoo xamut fan la ñuy duggee ci pecc mi. c'est parce que Ousmane Sonko li mu war a def da koy wax li mu ne mu wax ko li mu jot a def mu wax ko ak li muy war a def lépp da koy da ko da koy wax léegi nag da leen a déranger c'est que dañu bëgg léegi mu bàyyi leen terrain wax bi kenn du leen ko bàyyee nee na wax ji nag opposition ah non non non wax ji ànd naa ak jëf xam nga wax waxi kese moo amut solo mais wax ju ànd ak jëf ñi ngi wax ñi ngi jëf comprendre nga yow mi nekk ci terrain bi di gis gis nga ni gaa yaa ngi jëf bañ nañ ko ba ministre yi sax ni ñuy wàccee ci terrain bi la kenn musul gis. Biram Souleye barki Dembo njaay waaw gis naa ko. ah waa dëkk ba mu rom wàcc dajale waa dëkk ba toog wax ak ñoom ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am. ñuy dund. yaa ngi ci mbedd mi. ñi ngi liggéey ñi ngi wax ñi ngi jëf léegi nag lu tax ñu leen bàyyee wax bi ñu sosal di waxal lu amut buñ la yàggee waxal lu du dëgg te doo ci tontu. finalement fen woowu mën naa dem ba doon dëgg te nag ku ne xam na ni gars yi dañoo yor xaalis te dafa am ñu bari ñoo xam dañ leen a nekkal ci plateau yi léegi nag seen dem ci plateau yooyu li Ousmane ko def da leen di gêner ñoom dañoo bëgg seen métier gën a yomb ñu ne fa rek di wax kenn du leen weddi fii nag dangeen di wax nit ñi di leen indil ay preuve di leen weddi comprendre nga. Mm. te loolu daf leen a wan a wan ne leen ñii ñu informé ne xam nga lu tax Ndeye Fatou bi mu waxee waxam jële président xeebu ko xam nga mënoon na wax ne du ma ko tontu parce que petit journaliste yi soxla wut a tontu. na ko sax nee na day déglu gars mais fa mu ne. Mm-hmm. dafa ñëw tontu ko. Mm-hmm. ne bu leen di wax yenn yi parce que tànn dafa jafe. yaa ngi dégg ku tànn rek éliminer nga. comprendre nga mm-hmm. ëllëg si biir ñeneen mën nañoo ñëw yéen ñooñu di wax mën ngeen a ñëw. donc nañu bàyyi yenn yi nga xamante ne bii ñu ngi koy waxante. loolu mooy li nga xamante ne bi mooy li am léegi bu président noppiwaale waale woon loolu bàyyi rek gars yi di wax nit ñi mën nañu wax de waaye ay tokaar ñii di wax lële ñeneen di wax leneen donc kenn du leen bàyyee terrain bi président premier ministre député yi ministre yi ñëppay wax ñun ñii dañuy wax kenn du leen fi bàyyee terrain bi tey duñ leen bàyyee terrain bi ëllëg parce que liñ bëgg ñun ñëpp ko xam gis nga soo eh, kii ma jigéen mhm. yàlla du def mbir mi ñu xeex ko ba mu yegg si fii ñu di ko seetaan ñii di ko nërmeel ñi nërmeel réew mii mhm. kenn du leen seetaan ñu fii nërmeel réew mi yaa ngi dégg Badara Gadiaga mi bu yeboo ñu ne Badara Gadiaga li muy ñëw ci émission bi bari na mais ñu mel ni kenn du leen seetaan fu ñu waxee dinañ teg seeni mbir ci pénc mi càmbar ko parce que defe nañ ni bu ñu continuer nit ñi naan non li ngeen di wax ci kii bari na bu yàggee nga bàyyi non bu ko xeeb lépp lu mu wax teg ko ci pénc mi bu raayee ko wan na ko ne ko li ngay wax nekkul amut comprendre nga. Mm-hmm. lépp nag ñu teg ko ci xel ak tamit wax ju sell. Mm-hmm. waaye kenn du leen seetaan. Mm-hmm. ñuy yàq li nga xamante ni bii ci lañu wékk ñun sunuy avenir doom ak sunuy sët. kenn du leen seetaan ñu di ko yàq. bu yeboo moom ñu noppalu te xam ni seen manipulation yooyu ñu daan def. Mm-hmm. mënta ne parce que léegi fu nit ñi waxee. Mm-hmm. jafewut yomb na. Mm-hmm. te képp ku mën a wax bul ci xeeb sa bopp. ngir aar li nga xamante ni bi yaa ko yóbbu fa nga parce que bu doon ñii kese la système bi mooy continuer. fi toll nii ñoom ñi ñëpp. seeni i laaf dafa tooy xam nañ ni léegi dootuñu mën a naaw moo tax ñu bëgg a commencé di ruube yëf yi bëgg a jaxase kart gi mais mënu leen fee jaxase dara parce que nit ñi pare nañ pour aar li nga xam ni ñoo ko teg projet bi waaw macha allah am na solo Mbengue ñu jeexale ko nag euh, ñëpp xam nañ ni nag euh, président bi jomaa yi doon na euh, daje ak euh, jeune reporter yi am na nag ay kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko fa jëm ci wàllum impo bi bay joxe exemple ci communiqué yenn yi na muy doxe moom bu Bougane Gueye nag am na nu mu ko gisee ba àddu ci ci point de presse bi mu doon amal ñu dem déglu ko te dellu si mais c'est pour c'est sur les, les, la publicité mm-hmm. et les annonces mais nañ ci jël benn exemple bu simple j'ai un parent mu gaañu ma bëgg a dem pour ñu defal ma avide de bi ma dem avis de décès c'est pas exonéré de TVA entreprise bi ne ma facture avis de décès bi tant lii la format bii la boo jëlee format bi cent mille TVA euh, mille huit cent ma fay loolu fay TVA mu nekk cent huit mille ma ne ko mais doo TVA mu ne doo ko dindi mu ne ma déedéet moom ma ko état moo ko moom ma dem ci sama dëj l'entreprise de presse tey loolu pendant que je maa ngi ci dëj jusqu'à ce que affaire bi nekk ay milliards et on me dit nañ ko bàyyi Au nom de quoi Et eh, c'est. Et puis quand je... malheureux quand j'entends le président de la République, piètre en mathématiques, mu ne oui boo jëlee communiqué cent mille francs am nga ci TVA mu nekk cent huit mille en bon inspecteur des impôts xamuloo ne TVA dix huit pour cent la xamuloo ne TVA dix huit pour cent et puis xam nga buñ ko présenter noonu bu fekkee ne moom président moo wax noonu nga wax ak benn nax sa xandang benn naba bu mel ni Bougane danga naan non li mu wax dëgg la alors que yéen ñi yor entreprise Sénégal ñoo may seetaan xam nañ ne TVA da ngay def TVA bi nga encaissé bu weer deewee TVA bi nga encaissé ci mi ngi noonu alaaji dégg nga de euh, waxtaan wi ñaari nit ñoo ko sekk naaw bu ñu nee gin euh, président de la république euh, inspecteur la ci wàllum impôt yeeg kii ni mel kii ab journaliste la jël na waxu inspecteur bi teggi ne mu mel ni comme si moom daf koy jàngal mbir yi naka la war a doxee moom Bougane Gueye Dany teggi ay waxam jël ay waxam teg moom ne moom mooy bi jaadu. waa xam nga Bougane ndeysaan dafa xamut rek te ma yërëm ko ci ñàkk xam gi hmm. waaw xam nga boo demee ba nga xam ni nit ki dafa ñëw ngir expliquer euh, ba peuple bi pour ñu comprendre yëf yi naka la xam nga li ci am solo mooy dafa ko jël exemple maanaam wax la ne la supposons mu nekk nangam nangam loolu état waroon cee am nangam hmm. loolu exemple la boo xamante bi nit ñi dañ koy joxe comprendre mais li am solo mooy bit bi mooy fi mu jëm da la ko jëlal ci dëj mu nekkoon sax ci dëj nga xamante ni bi yow nit ki mënoo ko baal li nga xamante ni mooy kii nee nga ko loolu état moo ko moom te joxoo ko état li am solo mooy li nga waroon a joxe lekk ko bugaan foofu la waroon tontu maanaam ñoom li ñu lekk te waroon koo joxe mhm. léegi dégg nga ko moom ma ngay ñëw moom ci calcul nekkuñu ciy calcul bugaan dañ ne ko mu fay ay impôt na bàyyi calcul yi nii muy calculer yëf yi bay xam 18 pour cent ak yooyu na ko calculer fay ji ne pourtant na moom mi ngi versé de wax na sax ay journaliste am pour ñu dem euh, trésor pour vérifier ba xam waa léegi comme que mi ngi versé alhamdulilah na fay rek moom dañ koo woote ci mu fay rek président moom fa mu jaar nekk inspecteur des impôts. liggéey ko pendant quinze ans. Hmm. soxlawuñu mu ngi ñu defal président ab cour. Hmm. ñun ñu mu doon waxal xam nañ sens bi mu doon waxee comprendre nañ ko moom nag léegi moom moom liñ ko wax mooy demal fay demal fay yi rek lañ ko wax waxuñu ko leneen. wër-wër loo beeg yëpp yor suñu impôt di wër-wër di point de presse naan non tey maa ngi point de presse suba laay tontu ginnaaw suba nañu dibbali bàyyi wër-wër loo bi fay. mais noonu na nag ay laaj il faut ñu am ñuy contrer nag loolu kay mënu see. bi moo ñu sonal xam na Sénégal dafa neex quoi dëkk la boo xam ne billaay fii la fi gars yi randal xaalisu réew mi dem di wër kaaba gi rek di wër-wërloo <laughs> nañ bàyyi wër-wërloo bi yii ay wër-wërloo la rek moom liñ ko wax nii. mooy dañ na ko sëñ bi. kaay fay fayal impôt. nee na dañ koy ñun ñun président doon waxal. Hmm. ñun comprendre nañ li mu doon wax. moom nag moom bu dee moom moo bëgg a jël wax jooju naan ay 18 pour cent laag lii wag laag lële nekkuñu ci lool loolu yëpp calcul buggaan yaa fi dàqa mat yàlla la yàlla jàppale ci say mathématique say calcul président lañ fa léegi nekkatul inspecteur des impôts am na ñu fa nekk demal jonganteeg ñooñu ci mbir moomu mais président moom ci li mu ne mi ngi ci yow léegi li nga xam ne moom moom lañ koy laaj moom yu yuñ ko wax ma dem fay ji loxo mais nee na yi dañ koo bëgg a noggatu te du ko Eh, ma wax la leen nag ma jigéen yow xam nga ne yow gëmoo ni sax yow ci sa jëm bopp gëmoo ni gars yi dinañ noggatu Bougane gis nga ñii duñu noggatu kenn xam nga lu tax. parce que dañoo xam ni noggatu ay nit amul njariñ parce que dañoo ñoom dañoo judd ci ñu di leen noggatu ñu xam ni noggatu amul njariñ ba tey réew mi ñu yëkkati ko teg ko seen loxo xam nañ ni noggatu amul njariñ donc du jaarale kenn ñoom fi ñu leen jaarale. xalaatuñ ko sax parce que xam nañ ni amut sens lu sunu borom namm kenn mënu ci dara. parce que président bi xam nga lan mooy joxe réew mi. Mhm. mooy liggéey. te ci liggéey googu moom mooy ci li nga xam ne ci lañ ne. donc nag yii muy def nii di wër-wërloo jarut wër-wërloo bu mu ñu wër-wërloo di ñu jàngal ay mathématiques ak kiiw ak yooyu comprendre moom moo xam. moo man moo kii moo aay moo taqe moom na dem ak taqeem mag yooyu yëpp waaye daal li ko gars yi di wax mooy yooyu yëpp ginnaaw bi nga aayee ba taqee ba mën ba def lii yëpp créer ay entreprise toj dëkk bi def lu ne léegi waa ñëwal gi yow gars daal li ko wax coow li yëpp xam buggaan lii problème ak état bi xam mooy lan ñëwal gi yow géew dong lañ ko wax ñoom maanaam lii nga amee réew mi dañoo bëgg a defar fii benn hôpital boo xamante ni bii dani boo fayee lii keneen fay keneen fay ñu mën a tabax hôpital boo fayee lii keneen tay ñu mën a defar tëli ñu mën a defar pont ñu mën a taxaw ci liggéeyu ndaw ñi mën a defaral ambulants yi ñu defaral leen marché mais yooyu yëpp nag day fekk nga mën a nga nangoo fay. boo fayee loolu yëpp mën naa mu ni ñoom dañ koo war a def de. kan nee na état bi ambulants yi koy dañoo bëgg a dafa bëgg jàppale ambulants dafa bëgg fexe ambulants ñu wutal leen ay marché yu rafet ñu ne fa waaye loolu pour mu mën a ne. il faut yow nga fay il faut bu fay ñëwal géew. après wax dëgg fa yàlla xoolal benn ambulant du loolu du kii comprendre dinañ mën a régler problème bu ko defee ambulant yi ñu tukki bay jël gaal yi di suux loolu yëpp nag bu ngeen fayut nag loolu mooy indi nag ambulant yi sonn ñu jëlee leen ci télé bi ñu mer daal di dajale dem jël gaal daal dee tukki c'est parce que lan fayu leen mais bu ñu fayee li nga xam ne moom lañ ameel état bi sénégalais bu ne fexe la nga xam ne moom nga amee état bi nga kay nga def sa rôle yàq réew mi li nga xamante ne bi mooy réew mi nga def la nga xam ne moo la warloog moom bu boobaa ma jigéen état am doole am xaalis boo xamante ni bi dina mën a taxaw ci yu bari bu état taxawut ci yooyu nag nga mën a taxaw nag nekk hé man sama lépp respecté naa ko def naa lii def naa lii def naa lii yaa ma waxoon bu may def li nga xam ne moom laa war a def war naa am yow it loo xamante ni mën na jóge ci war naa mën a def fii tëli war ngaa mën a def fii bu boobaa nga mën a kaas mm-hmm. mais pareen saay ñoom ñu tàllal micro koo xam ni la muy kaas tëli ba muy kaas ka moom micro ba moo tere tëli ba yegg moo tere tere tëli ba waaw moom président bi sax wax na ko nee na mbirum impôt yi moom daañu ci gën a jublu bu baax a baax su ko defee rek euh, bépp sénégalais di ko fay comme ni mu waree ñu bàyyi ko mu tàggatoo ak euh, internet ñu suivre waaw macha allah ñuy joxante dig daje incha allah rabbi ci beneen. altine ak jàmm ci kàttanu borom bi ci kàttanu yàlla yàlla ñu yàlla suñu borom bi may. fekkee ak tal ak wér. bu ñu mën a toggaatee fii di waxtaan ak yéen internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ñu doon suivre jaajëfal itam di juuf mu nekkoon ci xarala gi ak euh, Abdou Top jaajëfal leen jox leen dig daje beneen yoon incha allah.